xoolal lim bi Souleymane bi di lettre ba ala taxaloo xale ya wa aatoo nii waxut ñëw leen ci yàlla ala taxaloo ndax du ngeen ñëw àlle ci man wa aatoo nii ngeen boy si ma muslimin ngeen jébbalu ci man boppam la signalé Souleymane wootewul ci yàlla xam nga lu ko may saas wa a mina Souleymane wa innoo bismillaahi rahmaani rahim bi jiital su ko def doon rek am problème ni ko lettre bi échec du moom dafa woote ci boppam dégg nga Rasulullah bi mu ne taxalaw ñëw leen yéen ñëpp xalaat kalimatin ci kàddu goo xam ne sawaayin baynanaa wa baynakum maa ngi yéen a yem ñu ne mooy lan mu ne mooy laa ilaaha illallaah ñu ne luñ caa def mu ne allaa na'budu illallaah ñun ñëpp buñ jaamoo ci ku dul yàlla kooku oote nañu ànd dem ci yàlla kii oote ci boppam mu ngi fi ba tey ci jamono bii am na kuy oote ci boppam samp njabootam wut lu am am koo xam ne yàlla rek a ko ñor su amee dépasse baax na su amul dépasse du jàmbal mu ngi toog fam toog ñooñu nag nit ñi ci ñoom soxla ñooñu nit ñi amuñ ci soxla ñooy noonu ñu ñi sooy wax dëgg léegi itam yow la boole ji kilifa ma kilifa gu jubut jàtteeku tànkam ci mu mustaqim warul ay nitam yàlla dama boole ji fa seet kebe marut ci seet kebe dara dara la marut ci seet kebe benn tibbukaay xam yàllaa faa yor loxoom Muhammad sax loxoom du fa dugg sax saka sa sëriñ inal fadla bi yedillah sa sëriñ sant ko. Mouhamad dafa yor loxoom sax suuf. inal farda bi yéen su ko tibbee laajul kenn tàgguwul kenn amul ministre amul premier ministre amul deuxième amul benn ambassade. yuutihi man yasa moom mooy tànn ka ko neex moom yàlla ci xolam mu jox ko. deexal wala nga coow wala nga boole ci sa sëriñ. ka tibbaloon sa sëriñ démb moo ko tibbal tey te tibbu tey ëpp doole tibbu démb sax mag ñi fi jiitu woon mm-hmm. kenn mënu ci woon a fekkee mënuñu woon a firi rajo yii moo bàyyi de xam nga luñ daan wax mm-hmm. dañ noon ki yent bi mu ne isaa nataqal xaddi xarubal bayit bu weeyu waxee fi siri woon jege mag ñi daan firi yëpp dañ noonu léegi addina tukki kon rajo wax fekk du noonu ndekk boo amee portable bi toog fii wax ak Amérique wax ak Màkka wax ak suuf wax ak réew mu ne mooy jege aay bi Rasul lay waxoon ne bu weñ ngi waxee fi sori woon jege ñoom mag ñi ñu daan ko firé ne bu weñ comme weñ wax na léegi nit ñi léegi tey na di jeex